jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM ñu leen di nuyu bu baax di rafetlu seen ànd ak euh, ñun mbokk yi xam ngeen ne samedi bu jot. bu 13h30 jotee jàpp 14h ñu ñëw ak yéen seen émission petit métier ngeen di sànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité Basirou Fall mi nga xam ne moom moo jiite kuréel gi ëmb mareyeur yu Saint-Louis euh, moom la ñu seqal waxtaan tey fas yéene waxtaanee. Euh, li nga xam ne moom mooy métier euh, métier mareyeur ak ñi nga xam ne ñoo si yëngook jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo ci moom moo ci am Basirou Fall maa ngi lay nuyu. waaye sëñ bi ñoo ngi lay fay. naka mbokk yi Saint-Louis. ñu sant yàlla ba alhamdulilah. barikàlla naka sa mbokk yi nga xam ne ñooy ñooy mareyeurs yi mbaa ñoo ngi si jàmm. waaw mareyeurs waaw ñu ngi sant ba alhamdulilah. aha yow yaa jiite kuréel gi ëmb mareyeurs yu Saint-Louis. waaw waaw Bassirou Fall. président association mareyeurs de saint ci union nationale du mareyeur du Sénégal. waaw. léegi Bassirou defaraat suñu liggéey euh, boo ñu ko doon càqil tey ci wolof noo ñu koy faram-fàccee nga nga ñu ko tuuti. waaw mariet mooy euh, ki nga xamante nii bu mool bi demee géej ba ñëw moom lay wër bu mool bi demee nekk biir géej bu jàppee jën ak saa bu ko laawee ba jàpp ba pare ba defar day woo mariet ba ni ko ah man kat jàpp naa jën préparé ndax moor bi bu demee jën ba teer noppi na ci jënam mariet bee koy xaar jëm jël otaam ak galaasam ay otaam ak i galaasam yëpp toog di ko xaar su ñëwee moom mooy jënd jën boobu fay ko yóbbu ko ci gox yu fasantikoo yëpp fii ba Dakar Touba Vélingara Koupentoum fépp ci Sénégal daal mareyeur ku lekk jën mareyeur moo la ko jël bu ko mool bi nappee ba ñëw ko indi ko ci tefes gi pare na ci moo mareyeur bi mooy defi pexe ba séddale ko senegal ba séddale ko Sénégal mooy mareyeur waaw maanaam yéen daal da ngeen toog mool bi de dugg ci biir géej gi ngeen toog di ah. xaar waaw dundee yaakaar di xaar ne yaakaar xaar waaw. léeg-léeg ndax tamit du ngeen gaare foofu seen i oto wut seen galaas ak seen yëpp far euh, mool bi ñëw amul jën. ah kay du ndax mool bi buy dem ñun dañuy toog di xaar ndax mool bi léeg buy dem nga jàppale ko ci yu bëree bëri ndax mool bi bu kaaya mareyeur bi kaaya na ndax da ngay toog yenn saa yi di xaar gaal gi gaal gi dem ñëw woola ne la jàpp ma jën tey damay ñëw si daal di alo Basirou bu fekkee amoo yeneen gaal man naam yeneen gaal nag ndax gaal yëpp mënuloo boo kaaya soo amee yeneen gaal nag bu gaal goo kaaya nga xaar yeneen gaal mais lay léeg itam day doon kaaya général gaal yëpp dañuy kaaya man nañ koo def sax ba def ay trois jours quatre jën du am mais lu jëm ci wàllu mariage euh, liggéey la boo xamante ni ndax lu yomb la yomb na yombul nag ndax boo ko dee xool nii bari na ku ciy dugg ba pare échec génnaat ndax échec ndax risque bi ngay jël mooy problème bi ndax dangay ñëw waxaale mool jënd jënam di jaay te xamagoo looy jaayee léeg nga dem ca marché yeneen tefe si am jën ngeen daje fa la nga jaay la nga jëndoon ngir ñu ko jaaywaat ko loolu perte léegi nag bu fekkente ni xamoo ko boo pertee da ngay daw bu fekkee xamoo ko nag boo perte da ngay taxawaat rek biraat xam ni ëllëg mën naa baaxaat am na jëriñ nag mën nga koo jënd moom xam li nga koy jaay ci usine su ko defee soo ko jëndee boo demee usine boo mën nga koo jaay xam ni yow xam nga li ngay jaay mais li ëpp ci jënd boo koy jëndit doo xam lu muy jar da ngay dem rek tenter sa ci marché ba di xaar yàlla kon mooy métier bi moo tax man la yomb na jafe na. d'accord waa léegi euh, Basirou euh, li nga xam ne tey mooy euh, wàllum mareyage hmm. yéen ñi koy def ñu tuddee leen ay mareyeurs. Hmm. yow kañ nga si dugg. ah man nag maa ngi ci bëgg a amee fan na ay fan bi ma bi ma commencé ay at la bi ma commencé liggéeyal sama bopp. ak léegi yàgg na moom mat na ah, mat na vingt ans mais bi ma ci duggee ak léegi moom maa ngi ci dugg ñëw maa ngi ci dugg mille neuf cent quatre-vingt-douze laa ci dugg. mille cent quatre vingt waaw ci laa ci dugg man mais booba nag dama doon liggéeyal damay doon liggéeyal ay nit. mais nooy liggéeyal ay nit ci loolu. ah ma réer ma ay employé fi mu man. boo ñëwoon xool fi may liggéey di topp sama ginnaaw ëpp na quarante personnes wala cinquante. waaw te ñëpp dama leen di fay bu nu wàccee. ndax kii débarqué ci gaal bi yaa koy fay te kii yëg ci oto bi di galaas yaa koy fay. ak ñii bind ak ñiy yóbbu marché baag boo demee marché ay nit da leen fay jëlaat di leen fay yëpp ba dee noonu la bare ay jour bi mais est-ce que yéen di ngeen di bëri ay surga comme ni nga ko waxee bëri ñoo xamante ni yéen ngi leen di euh, yéen a ngi leen liggéeyloo. mais léegi est-ce que tamit am na ay ay risques ci métier bi. risque lépp lépp risque la daanaka da ci mool bi commencé di dem géej fa la risque tàmbalee ba ci mareyeur bi jënd jënd ndax yow li ngay jënd di ko fay boo paree da ngay fay fi sensé te li ngay fay xamoo boo demee di nga gañam di. ah yéen da ngeen di fay mool bi ci sensé. waaw mool bi li ci ëpp bu dee fu mel ni Ndara noonu bu fekkante ne am nga relation ak sa mool. kooku man nga jënd mën nga jënd jën yëpp jox ko fare maanaam nga jënd waloru trois millions ba quatre yëkkati un million jox ko wala cinq cent yëkkati un jox ko wala nga jël ko cinq cent mille wala sept cent mille bu ko doyee essence mu dem jël essence nga dem jaay bu subaa nga fay ko yooyu day am mais bu dee ko amalul ko ne tax nag moom boo jëndee jënam da koy fay. léegi lan mooy risque yi. waaw risque bi mooy li ma la wax rek yaa ngi jël jënu jàmbur fay ko. fay fay ñu lay liggéeyal ñëpp def say fare jënd sa glace boo paree oto bi coûté la ay cinq millions nga départ jëm jëm Dakar wala Touba te booy ñëw mën ngaa àndaale deux millions. <laughs> mën ngaa àndaale. deux millions mën ngaa perte ba deux millions nga ah kon perte bi noonu lay gravé léeg-léeg. waaw perte maa ma réer sëñ bi moo gën a métti ci looy gis la amul benn traitement bu mel noonu. léegi yéen bu ngeen demoon ba jën xaw a manqué aussi seen liggéey du xaw a sooxee. ah waaw parce que ñu ngi ci fi mu ne nii rek ne nii may wax ak yow nii ñu ngi ci depuis euh, kañ euh, juin ba léegi juin juillet juillet ba léegi liggéeyul dañoo toog rek. ah amu leen liggéey. amuñu liggéey ba léegi. lu tax loolu jën yi jën dafa amul ci géej gi. jën amul ci géej gi parce que ren moom gis nga jën dafa manqué manqué boo xamante ni dafa yéeme sax. léegi lu tax jën manqué lu tax jën manqué. nii dem ba Mauritanie waaye daanaka ba jigéen Mauritanie mais pour ñu am jën rek problème la. léegi tax jën manqué. ah jën manqué na li tax ñu wax li tax mu manqué moom cité nañ ci bata de pêche yi nga xamante ni moom yoo ne ci géej gi di yàqal suñ mbokki gaal mool yi nga xamante nii suñ tëmbee bu guddee gis nga leen parce que démb rek am na benn benn mool bu ci faatu ndar ji bato bee war bato bato bee laal ba rey na ci kenn te ñoom mooy li ñu wax ak norme yi wax ak ñoom duñ ko respecté rek xam nga bato yi dañuy def bu guddee ñu wàcc si di napp ci ci côté gaal yi xam nga loolu lépp bokk na ci lii yàq géej gi ndax napp bato dafa metti bato dafa mën a euh, li muy li muy laaxe fu mu yàgg rek géej gi day waxuma day jeex waaye day manqué jën bu baax. maanaam mais est-ce que bato yooyu ngay wax tamit euh, bato étranger yi amul fu ñu leen yamloo. waaw am na fu ñu leen yamloo bato étranger mais dañ fa dul yam norme yooyu leen du leen loolu laa la wax. ah duñ ko res dañuy ñëw yéen dañ leen di fekk si yéen fi ngeen war a nappee. voilà dañuy fekk si mool yi fi ngeen war hmm. yàqal sax foofu. di leen yàq amoon na benn cas bu ci amoon Fass booy ndar gi bërki dem li ma lay wax nii matagul une semaine am na benn mool buñ ci faat. te te te te bateau étranger yi ñoom ñoo passé fi ñu leen yemloo. waaw dañ mais léegi xanaa amul ñuy contrôler biir géej gi. ah waaw am na parce que bërki démb ministre bi mi ngi ci doon wax loolu bërki démb bi mu wootee dakaar doon la ci wax loolu ñooñu war a contrôler géej gi ndax ñun defoon na benn conférence de presse àggee ko leen jàmbat nañ ko ba sonn xam naa nan ñu ciy liggéey mais liggéey xaw na yéex daal ndax. daaw daal loolu moom gàllankoor na Sénégal bu baax a baax ci wàllu jën boo xoolee ba fi mu ne nii jën dafa manqué. ah jën manqué yan jën a am fi mu ne nii. fi mu ne nii ci ndar nii moom jën dara jën amu si moom ndar moom ndar na ko ba fi mu ne nii may wax ak yow nii marché na indi jën di koy jaay ndax gars yi dañuy jëlee jën ba ay Maroc ak Mauritanie fu ne. di ko andi di ko jaay si biir xam nga loolu. mais su mais su passé bateau étranger yi nga xam ne ñu bari tuumaal nañ leen. Euh, hmm. leneen loo jàpp ne moo tax jën manqué. leneen lu ma jàpp ni moom la jën ah, moo tax jën manqué. waaw wala jën di faral di manqué ci géej gi. ah jën bi de moom xam naa. maanaam mën naa doon xam nga suñu borom it mbiram mooy moo yor lépp ndax mën naa am ren mën naa am fi mu ne ni mu ren man naa ñëw mu am ndax géej dina atal géej dina atal ndax ñun bu dee suñu zone bi sax ñun daanaka bato Sénégal yi xanaa côté Mauritanie bi. bu dee côté Mourtane la ñuy nappe. d' accord mais léegi euh, sëñ Bassirou Fall. waaw yow yaa jiite kuréel gi ëmb mareyeur yu Saint-Louis. Euh, yow la ñu invité tey ci rajo réew mi FM ñu waxtaane lu jëm ci wàllum euh, mareyage. léegi. Mm-hmm. li nga xam ne mooy bateau étranger yi. Mm-hmm. gis nañ ne. Euh, comme ni nga ko waxee bari nañ ñoo xamante ni yàgg nañoo wax loolu ne ñoom dañuy passé fi nga xam ne moom fa la ñu war a yem léegi ki nga xam ne mareyeur la nekk mareyeur sénégalais mm-hmm. moom bu dee euh, fi mu fi nga xam ne fi la war a yem dëgg jën yooyu yëpp bateau étranger yi napp nañu ko mm-hmm. moom léeg-léeg dafay faral di jéggi foofu ngir wuti jën ndax fa waroon a yem am jën bateau yi napp nañ jën yooyu xam ne su ñollaxlee tuuti rek Euh, risque mën naa am foofu ngelaw mën na koo këf wala leneen ak leneen. ñu réer ci géej géej yooyu est-ce que loolu tamit du ko faral di créer. wala bato yu mag yi waaw parce que boo nekkee biir géej caaya napp ñaari fan wala ñett amoo jën surtout gaalu bu maaree ak yooyu dañuy comme loolu wax lañu def dañuy jàll biir géej di a càmbar xool ba xam am jënam déet xam nga yooyu nag boo ko defee rek risque la parce que am na am na foo xamante ni gaal waru faa daw foo bato yu mag yi rek ñoo fay dem léegi nag boo boo tànnee yow ba dugg fa rek boo fa dajeeg benn bato rek maar day taali waaw mais fi mu ni nii kon euh, maanaam état bi ma ngi créer ma ngi créer ay chômeur te yëgu ko ndax. Ah, ndax tey ndax tey yow ni nga ko waxee sànq. yow ñaata employé ngay jël. Mm-hmm. te yéen économiquement sax li ngeen di jënd ci carburant kenn xamul nu mu toll. yee kooku koy yéen mën la ko wax moom si. léegi ak ñi waa liggéey foofu yëpp maanaam ñuy dugg ci biir géej gi mool yi. indi jën yi yéen mareyeurs yi ñi nga xam ne ñooy jaay ci tefes gi. maire yi koy jëlaat yóbbaat ko ci marché yi. yooyu yëpp bu ñu fexee ba liggéey yooyu taxaw loolu gàllankoor la ci ville boo xamante ni ville de Saint-Louis ville boo xam ne. ñoom seen koom-koom lu si ëpp foofu lañ ko yaakaare. waaw loolu dëgg la gis nga dogguma la sëñ bi su fekkente woon ne campagne dafa ubbi ngay ñëw fu mel ndar taxaw ci tefes gi li ngay gis ci mbooloo di nga maanaam eh, dama naan suñ état yi suñ doon xool loolu dinañ gën a respecté mool yi gën leen jàppale gën leen jàppale mool yi ak mareyeur yi nga xam ne ñooy jënd jën xam ni ñii ay jàmbaar la yoo xamante nii suñ amoon li ñuy wut suñ ko amee xam naa ni doot mu sonal kenn ci lenn ndax géej moom bu gaal bu mool xasee teer am jën ñëpp a nga fa mareyeur bi day liggéey héberteur bi day liggéey glacier kan bi day liggéey borom station bi day liggéey borom glace bi day liggéey ñëpp daal kay dëgg même marché ba sax boo demee da ngay sant tey jii jën am na jaay kat bi commerçant bi jaay tissuer yëpp da ngay sant jën am na parce que fii ci Ndar nii fi ne da ngay benn kul da nga naan kii xamul luy jën dala naan waa ana gaal yi tàmbalee parce que xam na ni dëkk bi yëpp jën moo ko pare kon loolu moom état Sénégal lu mu ci mën a gën a jàpp soqali liggéey gi moo baax ndax moom ah, mais yéen waaw yéen mareyeurs yi. ak yéen mm-hmm. mool yi. yéen dafa am rôle bu am solo boo xam ne def ngeen koy dangeen koy jouer saa su nekk. xam nga yéen sénégalais yi mënuñoo ñàkk ba ñu lekk jën. déedéet. waaw euh, ndax réew la moo xam ne sénégalais yi bëgg nañ ceebu jën ba nga xam ne koo ñëwul <laughs> ceebu jën mën nañ di ko tegale di ko añi fan. Ah, waaw waaw waaw mais yéen tamit dama jàpp ne seen stratégie parfois dafay faral di des. ndax yéen euh, waru leen a nangu bato étranger yi ñëw di jalgati norme yi. ak di leen di leen di di jaar ci kaw mool yi di leen di faat loolu dafa nekk loo xamante ne lu ñaaw la yéen nag da ngeen see war a am benn taxawaay position boo xam ne même askan bi dañ leen see war a jàppale ndax loolu tamit bokk na si liy nasaxal am réew ñun amuñu lu dul géej amuñu ak mbay ak ak sàmm lañ am te gis nañ ne napp gaa ngi yàqu léegi yéen jéewu ngeen di taxaw pour état bu senegal def fulaak fayda euh, ci surveiller géej ndax gis nañ yeneen réew yi Mauritanie fi nii jàpp naa ne moo ñu raw ci mbir moomu waaw moo raw bu baax moo ñu raw bu baax lan moo tax mu raw ñu ak yéen liit lan ngeen xalaat pour taxaw pour xeex ko Bachirou waaw mba foofu laa ñëw am nga suñu état yi daa daanaka boo xoolee ñetti at yi daanaka semaine boo toog di nga dégg mool yi wax ci géej gi wala mareyeur yi wax ci géej boo xoolee dimanche dimanche bi passé ñëpp def na benn sorte mool yi def nañ ko ñun ñii def nañ ko kawlax kawlax lañ ko defee waaye euh, su ministre euh, Alioune Ndoye dégg nga barki démb nee na moom ci boppam moom signéegul licence signéegul benn licence yi ñu fi fekkoon rek tey xam na ni sax bato moom mënut a ñàkk ci géej may nag. mais mu yem fi mu war a yem li mu bëgg mooy na yem fi mu war a yem rek. Mhm. ñu am ay contrôle yu dañuy ne ci bato yi. di xool saa boo bëggee jalgati ñu ne ko ah ñu teg ko ay daan teg ko ay sanctions yu metti parce que fu mel ni Mauritanie daan naa ko gis ñoom dañuy jàpp bato. dem ba bato bi jalgati ñu jàpp bato mais buñ la jàppee dinañ la fayloo loolu ci alal yow dootoo xalaat sax di di déem a def loolu. non non mais Bachirou. Ah. xam nga Sénégal tamit même daan yi Mauritanie la ndax euh, ñu Sénégal daan yi. waaw bokk na mhm. si bokk na si bu ñu la jàppee nga fay 500 millions. million millions soo fayee ministre Omar gi ko. waaw soo fayee 500 millions boo ko defaatee. Mhm. mën na ngaa fayaat ay millions ba pare ñu nangu sa matériel. mais fii Sénégal corruption bi ak ni mu demee. déggoon ngeen temps wu Ali Aydar li fi amoon. Ali Aydar waaw bata yoo xam ne bu ñu la jàppee ngay jéem a <laughs> graissé. mais loolu tamit problème la Bachirou. waaw yooyu mooy yàq suñu réew mi rek loolu foo dem si mi moom dafay dafa yaatu daal loolu daal moo moom mooy problème mooy jàngoro yi nga xamante ni daal ma naka lan saafara mais lu métti la ci mareyeur yi daal moom. mareyeur yi daal moom fi mu ne bu bëggee dëgg dëgg sonn nan te financement yi gars yi joxe sax ñoom pour ñu am ci problème la boo xoolee Covid 19 bi jaar na fi ba jàll mareyeur loolu fi dara. ñi doon ah. dimbali yëpp mareyeur yi bokkuñu. mareyeur yi joxuñu leen si xaalis bi. joxuñu leen ñaar dërëm dara joxuñu leen. mais xanaa da ngeen a organisé wul. organisé wu nañ ba sonn wax ba sonn dégg nga nooti bind nañ def nañ lu ne. Euh, Saint-Louis amul benn mareyeur bu ñu fa jox dara dara dara ci mille milliards yi. ah man de kuréel gi ma jiite. Ah. xam naa ne bin bindee defoon nañ ay trente millions déposé ko mais ba léegi si may wax ak yow. bi ma leen woo bi ma wootee ba woote naa ci ba ba banque banque fu ma laaj tan ma naa daal affaire bi génnagul xaar leen. ba léegi nii daal dara. ba léegi nii dara. même yéen Jakarta maa jox nañ leen sax te yéen da ngeen loro ci ah. ci da ngeen a loro ci Covid bi. ñun de joxoon ñu ñaar vraiment te ñun dañoo loro dañoo taawoon daanaka liggéeyatu mun liggéey tey suba duñ liggéey léeg-léeg mool bi dem géej ba ñëw ñu ne ko doo mën a yeb jënee fanaan yàqu. waaw kooku. lépp yàqu. lépp yàqu kay mool ba kay day perte ci loolu. waaw te xam nga tamit tëjoon nañ fi frontières yeeg xeet yu demee noonu. kii euh, dëkk yeeg dëkk yi. waaw loolu kay moom kenn waxu tëj frontière rek doo dem dëkk sàngam doo dem doo génn guddi rek ngay daw ci marché ba boo demee kenn ni tey nekk xam nga te xam nga bu ñu tëjee marché yi daanaka ñu samedi ak dimanche mu ubbi. tey ngay moom daal mooy loolu doy na war daal. xam naa léegi trop euh, Bassirou Fall yow yaa jiite euh, kuréel gi ëmb mareyeur yu Saint-Louis. Euh, mhm. yow ngay mareyeur ñuy waxtaanee ci métier bi nga xam ne moom mooy mareyage. métier la boo xamante ni yow comme ni nga ko waxee yàgg nga si mais bu njëkk. Euh, nee nga bi nga commencé liggéeyal sa bopp rek toll na ci euh, vingt ans ndax métier la ah. boo xamante ni tey euh, ki hmm. koy liggéey ma ngi ciy gis boppam ndax gis naa ne yow def nga ci vingt ans nit ki nag fu mu def vingt ans hmm. bu dee métier bi dox na dëgg-dëgg war nga dem hmm. ba am ci am ci am ci lenn li moo xam say oto yu nga si am wala leneen ak leneen métier bi yow boo ko doon évaluer tey lan nga ñuy wax waaw boo koy évaluer nag dama la daan wax yàlla du ñëpp mais am na ñun nag bu baax ndax man mi wax ak yow wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant yàlla ndax lépp lu ma am ginnaaw yàlla ci moom laa ko am te am naa ci teraangaatam wax dëgg yàlla am naa ci am na ñu nit ñu baree bare am nañ ko ci am nañu nag yàlla defu ci seen saas xañ na ñu ngi ciy jóge ka daanu waaye daal euh, boo bëggee dégg-dégg marière moom maanaam euh, ndimbal la ndimbal la ci géej ci boppam mooy ndimbal maanaam wàllu tefes ci boppam moo bari ndimbal ndax tey jii mën nga ñëw di gan amoo dara mool bi teer jënam woola nga taxaw nii sax mu may la nga jaayam dara wala nga jàppale ko mu pare yëkkati dara jox la muy mool ba muy mariér bi kon loolu moo tax man la géej moom léppam xéewal la ku ci xëy daal ba jant suuf soo yàlla da nga am dépasse wala da nga da nga am dépasse bu mat kon man la ñun moom ñu ngi sant yàlla baax wax dëgg yàlla waaye nag métier mi moom fan toolu woon ak fii baaxul fi mu ne nii moom. mais bu njëkk la gënoon a neex bu la gënoon a neex. non bu jëkk la gënoon a neex bu baax sax. Ah, lan moo tax taxoon mu neex bu njëkk nan. non booba jën ah, ah. booba jën dafa am. booba jën dafa am jën dafa bari woon ba am problème mu foo koy sax boobu. nga xam ne jën yi day teer nii nga yebbi ci ba sonn di ko xool mu lay xool. <laughs> wala ñu tuur ko sax booba amoon jën yi di la xool ngay leen di xool. waaw ci man dara. <laughs> boobu jën dafa bari woon. ah léegi nag jën amul dafa bëreetul ah boobu daal bénéfice bi amoon na am bëri woon na daal. non boobu la dàq moom wax dëgg yàlla boobu la tane moom boobu moom tane na mais léegi moom jën moo amatul léegi. ah mais est-ce que métier la tamit boo xam ne xale yi ñoo ngi siy dugg. waaw waaw du jeex li xew moo du gën ndax li ma la wax nii tax na da gis ku jàng ba ba sori bu école tëjee nga gis ñu daw ñëw ci géej gi nga xam ne bu seeni kilifa góorgóorlu gaaw jàpp ci rek boo moytuwul mën naa yàq seenum njàng ndax amin wa ni ñuy jàppandire boo gisee ñi ci nekk ni ñuy laabire ah, jàppalante beeg ak jàppal ci lii am dara nga xëy am sa am sa cinq mille wala sa deux mille wala trois mille xam nga boo gisee élève boo xamante day nekk université yooyu mu di ko jafe boo moytuwul rek ay kookam góor mën nañ faa dox la te dafi am fii ah day am fii ci ndar est bu jàng ba yor ay ay ay diplôme na ci géej di liggéey. ah di si liggéey. waaw. d' accord léegi euh, lu jëm ci wàllum nag euh, euh, mariage ba tey ci Sénégal mm-hmm. est ce que gis nga tamit ne am na sunu secteur privé bi ñoo xam ne ñoo ngi ciy investir. waa ñoo ngi ciy investir waaw am na waaw loolu am na am nañu ci investir bu baax wax dëgg yàlla am nañu ci investir ndax am nañu daanaka boo gisee investir mooy boo tàmbalee ci lii boo tàmbalee ci lii yaa ngay avancé mën ngaa dem ba am nañu ubbi nañ ci usine di jaay yóbbu jën muy dem Côte d'Ivoire ak loolu uh-huh. mooy am na d' accord léegi oto lañ tàmbali woon dem ba oto. Uh-huh. yooyu yëpp da ci am. dégg naa ministre bi nee na euh, Brest bu Saint-Louis bi ñu ko def liggéey ci lu toll si juróomi weer. xaalis bi si dugal huit milliards la. Euh, yow ngay mareyeur lan moo ciy sa xalaat. waaw wax na ko démb te am nañ ci yaakaar wax dëgg yàlla ndax gaa yaa ngi ci bu baax. te loolu moom wax dëgg yàlla bokk na ci jafe-jafe bi nga xamante ni moo gënoon a metti ci ndaw waxuma la ñaan kum jën mi sax waaye bël bi moom doonoon na conséquence bu ci ndar moom bu buñ ko defaralee rek ndax wax dëgg yàlla bakkan lu koy lor rek te nga xam ni fii lay jóge kooku da ngaa war a jaayante ak adduna ak li ci biir saafara ko comme tey suñ président mi ngi ci ministre bi ñëwoon na ci démb commencé nañ ko yaakaar naa la quinze août lañ ko waroon a tàmbali waaw la quinze août dañ ko tàmbali woon kon loolu moom wax dëgg yàlla dañ ko ci sant di ko gërëm tey ñaan yàlla rek liggéey bi ak ci jàmm ba benn bakkan dootu fi wadd. waaw mais mais huit milliards moo koy liggéey huit milliards amaana bëriwul ci état lan moo tax état ba Sénégal xaar xaar yu yàgg yooyu ba ñu baree bare ñàkk fa seen bakkan. loolu kay moom jaay huit milliards de dara huit milliards de dara ci état huit milliards tey emploi euh, emploi yi muy créé nii li li li liggéey ci emploi ci ci géej gi yëkkati woon huit milliards waxuma la huit milliards sax wala dix milliards sax def ko ci nit ñi am jàmm géej gi am jàmm moo lay dem di ñëw du am benn problème moo gënoon fopp ñu naa la ay ñaata personnes ay trois cent et quelques personnes faatu nañ ci xam nga loolu doy na war rek xam nga ni loolu moom xañ na nag lu mu doon daamu gàpp rek tey la ko yàlla dogal. waaye mais yàggoon na leen koo dig de. yàgg na wuu yàgg na yàgg na trop kay bel bi kay moom daanaka moom digoon nañu ko ban xàddina ndax digoon nañu ko fi sax ba ba ñooñu ñëwoon société bi ñëwoon booba dawaat. man hmm. mi booba keroog ñëwoon naa Dakar ba jàkkaarloo ba ci président Macky Sall li muy wax ak ñoom waaye ñooñu dañoo dawoon ñu mujj indiwaat ñeneen. d'accord yow yàgg nga ci wàllum euh, wàllum jën yi. ngay hmm. mareyeur. Euh, hmm. Sénégal ban taxawaay nga gis ne moom la waroon am dëgg dëgg dëgg. ci wàllum pêche te amu ko. waa Sénégal moom wàllu pêche bi damaa yaakaar ni sax man dañ koo saagane. ndax yenn saa yi may xool dama naan dañ koo xamul suñu état Ah. damay toog ba jàgg ma naan euh, euh, wàllu pes dëgg dëgg dañoo xamul maanaam li ñuy jariñ nit ñi ak ak ak ñi ciy jariñu dëgg dëgg mais suñ ko xamoon dëgg dëgg lépp luy lépp lu ñuy wax ci Sénégal pes lañ ciy gën a jàppale ak ak mbay meeg sàmm gi ndax nga naa la tey boo ñëwoon fii tey ba gis gaari per bu mbooloo mi fi nekk doo xam lu ñu toll te ñëpp ci la ñuy jariñu. waaw waaw mais mais mais état xanaa waruñ ko ñàkk bañ a xam ndax ministère bi dina am ay conseils yoo xam ne ay mareyeurs lañ ay conseils yoo xamante ni ay ay mool lañ. ah du ñàkk de ndax dina leen woo di wax ak ñun nee na xam nga suñ ne nii suñ euh, suñ suñ état yi yenn saa yi dañuy xam dara ba pare di ko négliger négliger bi moom problème la ndax gis nga li ma la wax nii suñ ko xamoon dëgg-dëgg maanaam lu ñu yëkkati rek. pes moom dara du ko ci jiitu dara du ko ci ëppale te toujours war na nuy geesu di leen gën a jàppale nag di jàppale mareyeurs yi parce que mareyeurs yi ay jàmbaar lan mais da ngay gis ñu amuñu doole fi mu nii ay financement dañ koy soxla mais pour nga am ko problème la dañ laa laaj garantie yu doo ko am te ministre bi tey ji lu mel ne xottu kees rek tey bu bu ko doon jox mareyeurs yi di leen ko lebal nit koy delloo xottu kees googu mooy liggéey jën bi ah eh, machines yi wàññi woon nañ ko waaye machine yi gaal yi xam naa loolu wàllu mool sax gis nga wàññiwoon nañ ko waaye gis nga ni mu yokk waate léegi oto yi mhm. gis nga oto yéen bi génne woon di ko joxe oto yëpp marière bu ko jël tey mënoo koo fay parce que oto bu coûté ay trente millions soo ko joxee tey kenn nit ku musulaam oto wala dara te léegi yam demeewul loolu bala koy fay problème lay doon xam nga yooyu yëpp la waaye nag nit boo koy dimbalee da koy mën nga ko andil oto boo xamante ne wala nga saaseel ko parking bi am noonu oto yu màggat yul tey comme ni mu def biis yeeg yooyu buñ ko defaloon tey indi leen oto yi nga xamante ni parking bi kooku bu waawaa ci lay gën a yomb ci yow mais bu ñu indee oto bees sàq jaay la ko ay trente millions wala quarante kooku bala nga koo fay mën nga dem ba am ci problème sax te liggéey bi gis nga jënd ni manqué léeg day métti waaw. waaw ah, day métti waaw. jërëjëf euh, Bassirou Fall yaa jiite kuréel gi ëmb mareyeur yu euh, Saint-Louis ñuy waxtaanee métier euh, mareyage ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo ci am métier boo xam ne daal jàpp nga ne neexoon na bu njëkk waaye fi mu ne nii daal. Mhm. ay jafe-jafe la làmbool. waaw jafe-jafe yu bari la yu bari la làmbool de te est xam nga ne du métier buy dee. du métier buy. buy dee. du dee bu rek maa ngi koy wax sama benn waay. du métier buy dee ndax nee ko nee ko mbirum géej diggante mool ak maree du métier muy dee. du métier muy dee du loo xayante ni moom day dee kooku bu mool yi xanaa xamoo yéen mool yi fi mu nii mool yi ak mareyeurs yi. Eh. bu ñu taxawoon une semaine. Eh. mool yi ne dugguñu si géej gi. ngeen ànd seeg ñoom benn semaine rek. waaw sénégalais yëpp jàpp naa ne danañ jóg wax ak ministre bi. la ilaha loolu koy kenn werantoo xam na bu ko defoon bu ko defee jafe-jafe yëpp nag saafara woo. Eh, waaw xam pourtant nag aaje na ko pourtant aaje na ko nag. daaw nag amoon na fi sax amul woon une semaine waaye mool yi gërëmoon nañ ci benn gërëmul yaakaar naa deux jours. kenn lekkul jën waaw même mareyeurs yi defoon nañ ko fi union nationale du mareyeur du Sénégal. waaw yore woon nañ ci mm-hmm. préparé woon nañ ci garab temps yi foo bascule bi foo bascule bi foo bascule bi ba ko nga xam ni oto bu jaar fay cent mille daanaka doo xam looy fayee yore woon nañ ci woon nañ ci yaakaar na metti woon na ah ministre bi moonu mujj woo booba ministre bi moo mooy moo fi ne Alioune Ndoye mi moonu woo ak Omar Youm après ñu teggil nu ko nag wax dëgg yàlla ñu leen ci sant di leen ci gërëm waaw d'accord mais Bachirou mm-hmm. xam nga tey par tey bateau étranger yi mm-hmm. ñëw gi ñuy ñëw ci di salfaañu norme yi. ay milliards yi milliards yi milliards la Sénégal di ñàkk par mm. année ci pêche illicite bi. Mm. waaw yi milliards yooyu nag c'est pas normal. Mm-hmm. Euh, beneen bi mooy yéen seen napp gi waroon naa gën a neex employés yi waroon naa gën a mën a am. waaye bateau étranger yi ñoom ñooy jéggi norme yi. beneen bi ñoom ñuy rey ñi nga xam ne nag ñooy mool yi. loolu dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te loolu xeex la boo xam ne yéen ñi mhm. si nekk da ngeen ci war a taxaw mais su ngeen euh, su ngeen ko defee benn fan ñaari fan ngeen ne grève mhm. ngeen ministre bi woo leen négocier ak yéen ngeen bàyyiwaat di ngeen ko dund cinquante ans te du saafarawu te te ñëpp xayma nañ ne pêche illicite bi ay milliare et la si Sénégal di ñàkk te xeex boobu yéen kenn waru leen see jiitu dëgg la yéen pê yéen pêcheur yéen pêcheurs yi mareyeurs yi mhm. ak pêcheurs yi waaw loolu de xam naa xanaa nan ñaan yàlla mu yem fi rek liñ leen di wax ñu defal la ko waaye bu dëkkul itam hmm? loolu dina loolu ngay wax noonu dana masa am xam naa ne. ah ndax nit itam lam yaakaar di ca dund ka tedd xam li ko koy yàqal moom. Hmm? Mm-hmm. dina taxaw jéem koo saafara ak nu mu ko mën a saafaraa. dëgg la. waaw suñ ministre nag mi ngi góorgóorlu wax nañ ko lu bari. Ah, loolu Alioune Ndoye daal waaw nee na dina ci jóg de. loolu de moom xam naa ni barki dem bi muy wax ndaje ma dem ma woon mais sama naataango yi fa demoon. Hmm. laajte na ba laajte contrôle bi nga xamante ne waa korot nga xam ne ñoom ñoo war a toppatoo wàllu bato yi. Hmm. jéggi naa laajte na ko fa mbooloo ma man nag dem ma waaw ndax moom daal ci li ci ni muy waxe nee na moom gaali euh, pêche artisanale la àndal àndut ak mukk euh, industriel yi. ndax moom lébu la te xam na géej itam kon yaakaar naa loolu bu ko waxee ñun dañ koy jëm. mais gis nga ne gis nga ne daal ma ngi def fi jéego. waaye mi ngi defi jéego moom wax dëgg yàlla xanaa mu yokk ko bu baax rek waaye mi ngi def moom wax dëgg yàlla ndax bu ma nee rek waxuma def. d'accord kon euh, daal ñu koy ñaan mu gënoo dimbali ci wàllu bato yi moom. mu ci mën a taxawee. comme moom nee na si signé gul benn licence yi fi renouvelé nanu dimbali bu mu signé ñooñu mu fekkoon noonu mu dox puus leen quatre-vingts kilomètres wala cent kilomètres biir géej bàyyi suñu gaal yi napp fii. d'accord ndax ñu mën a am dara. Bassirou Fall ñoo ngi lay sant di la gërëm jërëjëf sëñ bi. jërëjëf euh, Bassirou Fall moom moo jiite euh, mareyeurs yu euh, mareyeurs yu Saint-Louis moom la ñu invité woon tey ci seen émission petit métier ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 13h30 jàpp 14h Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.